man la Omar Sow dama nekk si jaxe moo tax ma ñëw euh, si télé Kër Ndaanaan dama am sama benn doom bu réer doon jàngee fii Tëngéej mu tudd Ousmane Sow Tëngéej sant yàlla la nekkoon daara Tafsir Diallo euh, dafa xaw a réer nag ay fan depuis le vingt neuf bale ba gis nga tey lu douze Euh, maay nekk si jaaxle nag moo tax ma ñëw ci rajo bi tey di koy def déclaration ku ko gis nga woote si numéro 78 253 82 39 ou 76 437 06 87 numéro benn numéro bi man maa ko moom beneen numéro bi sama numéro soxna la yaayam yaayu gune gi gune gi Ousmane Sow la tudd Euh, dem naa nag ci sëriñ bi wax naa ko ne ko nit su la joxee sa doom nga koy jàngal alxuraan soo toogee benn fan gisoo ko nga war a woo pàppam wax ko diw ñëwut sëriñ bi de dama ñëw ci moom mu ne ma des fois day dal daf koy dal ci daara ji ma ne ko man de li ngay gis ni weddiwuma la yéen a xam ni seen daara na muy deme mais bam toogee benn fan fanaan siwut nga mu waroon a woo wax ma ko mais man dama toog ba sama jabar man moo ma wax ma loolu ma déglu ko ba tey après kooku woo ma wax ma ko ba ma ko waxee ma jóg init ma ma ne mën naa bàyyi sama liggéey dem ci sëriñ bi yegg si nuyu toog waxtaan ak moom mu ne ma li tax duma la teel a woo des fois xale yi dañ koy def ñaari fan ñetti fan ñu dog leen gis ma ne ko Sénégal nag tollootut foofu tollootut foofu nit ki moom su la joxee doomam su toogee benn fan gisoo ko woo nañ ba sonn wóor nañ ba sonn wër nañ ba géejawaay wër nañ ba yoof fii wër nañ ba mbambiloor wër nañ ba ba gorom boo diya euh, benn benn benn yooyu yëpp dem naa fa wër naa ba sonn tëngéej fii daanaka amul fu ma fi taxaw yëpp wër naa ko ba sonn naa ku ma wax ne gis na ko amul kenn ku ma wax ni gis na ko daara bi ñuy déggante ñuy déggante ñoom ñu ngi xëy mook taal bi yi nga xamante ñoo xaw a mag xëy dem seeti su wàccee ngoon ne ma seeti woon na dugg naa fi dugg naa fale ma itam ma su ma wàccee dama koy woo ma ne ko man de gisuma kenn ku ko gis. àgg na si daara ji daal ren la fa doon def trois ans si daara ji mu ngi soog a réer mais li tax ma tiit ci eh, gune goo xamante ni mu ngi nekk ak ay baayam foofu ci daara ji ak ay magam ci daara ji moom seulement mu kite foofu moo tax ma nekk ci jàq te man dama nekk koo xamante ne ni euh, ni gune gi ni may waxee baay noonu lañ may waxe noonu lay waxee baay man xam nga souvent ñooñu samay rakk lañ ak samay doomu mag ñoo fa nekk te moom kese mu kitee si daara ji moo tax ma jaaxle instant bi nag euh, man samay mbokk yi ñu ngi dëkk ci région Kaolack amul kenn koo xamante ne ni jóg na ñëw dimbali si ma moo tax ma nekk ci njàq njàq man damay ñaan réew mi Sénégal képp ku gis gune googu képp ku gis gune googu dimbali ma lillaay war a suur yi ah, nga woote si numéro yooyu ma joxe 78 253 82 39 man de maa ngi ñaan yàlla képp ku ko gis ah képp lu loo bugg si sa xel na yàlla ko yàlla may képp ku ko gis nga indi ko si rajo bi wala nga woote si numéro yooyu maa ngi koy ñaan dimbal boobu na woote si numéro bi 78 253 82 39 ou 437 06 87